waaleykum wa rahmatulah mbokku internet yu seen football TV nuyu naa leen bu baax a baax. ziar leen te ne damay ñëw wax si Nampalys Mendy Nampalys Mendy lenn rek moo tax may wax ci moom dañu seetaan benn interview bu am solo bu xamante ne Idrissa Gana Gueye moo ko def Idrissa Gana Gueye wax na ne euh, Nampalys Mendy bu mu ñëwee euh, équipe nationale du Sénégal ne euh, nii la neexee ba Gana Gueye nag boo fa duggul rek mënoo ko xam donc xam naa ne benn message message bi dafa leer nañ mooy que bii na suñu yëpp laay waxal ñoom ñëpp laay waxal muy petite catégorie ñi xamante ne maay wax ak ñoom Instagram mu ñi xamante ne def naa ci ñoom vidéo message bu Nampalys Mendy bii rek xam nga doy doy na ñëpp quoi tant que ñëwoo Sénégal doo xam Sénégal ni mu neexee sélection dafa neex trop laaj ko Zidane laaj ko Karim Benzema Zidane am na benn moment dafa bàyyiwoon euh, équipe de France mais bi mu gisee joueur euh, au niveau de Real Madrid joueur internationaux yëpp di dem mu wéet foofu ak boy ak boy Casilla mu def retouram

amuñu professionnalisme organisation bi demul noonu suñu terrain yi da ngay reeba tas mais bés boo ñëwee équipe nationale du Sénégal ba seul maillot bi non da ngay regretter xaw ma ndax Nampalys Mendy regretter na xaw ma ndax regretter wu mais 28 ans 29 normalement at yi si ginnaaw parce que. Euh, Aliou Cissé dafa sonn si moom dafa sonn si kaam parce que moom moo ko wax Aliou Cissé Aliou dama sonn si moom parce que mu nekkoon joueur bi xamante ne dama koy seet maanaam un vrai sentinelle récupérateur du ma waxaat carrière am que ça soit Monaco avec xam nga euh, Ranieri dem Nice avec Claude xam ba loolu prestation yu baax moo ko yóbbu Leinster donc euh, Leinster jamono bi amul temps de jeu mais bu fekkoon ñëw ne sax équipe nationale du Sénégal dina am yeneen offre parce que voilà pour vous dire que tant que ñëwoo équipe nationale du Sénégal parce que c'est un message très important Mais nous ma déggee Idrissa faire Gueye wax loolu loolu la ma sa parce que dama gis ne joueurs, yi Abdou Diallo wax na ab jallo ne bu ñëw fi voilà xam rek xam gaay dañu minante dégo bi voilà quoi deux premiers jours rek voilà nga gis seen tuma ci jëm mu wax la lool nga gis faux de balle touré mu wax la lool nga gis ben ñom bula jaar ñi xamantene mom ñom ñoo mësa rêve ñom ñom ñoko waxal seen bop ay bula jaar ñom mom dañoo rêve ñoo ikum sang du sénégal mais c'est un message très important bu xamantene euh nampis mënd di wax na ko sénégalais yi maré won nañ ko xeyna li ñuy wax rek ñàkk xam ni mu wëral dafa bëri boo nekkee fële France ñoo la formé say mbokk foofu lañ nekk foofu nga xam foofu nga bëgg a joué c' est normal mais bul jugé Sénégal bul ne Sénégal ah foofu bu ma fa demee est ce sama carrière du yaaxu est ce que bu ma fa demee du ma am blessure est ce que est ce que question est posée. posé nga au Sénégal c'est pas pour rien du club, l'un des meilleurs défenseurs du monde Sénégal même si je ne wax Sénégal parce que Sénégal parce que Sénégal c'est bi à certes war des le mais Le Sénégal parce que Sénégal vitrine la que prestations xam nga da ngay changer club mën nga dem équipe bu gën a baax sax équipe bi ñu nekk donc c'est un message très important boo xamante bu mu sànnee interview franchement daf ma neex ba tax na nag mbokk dem leen wax euh, ngeen wax ma seen xalaat ak seen gis-gis dem suñu compte Instagram foofu ngeen mën a waxtaan ak WhatsApp parfois message day bëri euh, di leen jaajëfal di leen wax ba beneen sur seen football TV